yéen ñi di suivre suñu kër gi di Faaida TV bu ngeen bëggee di jot ci suñuy programme ak di seetaan suñuy vidéo da ngeen di abonné ci seen bii di Faaida TV ngir abonné da ngeen di bës ci bind bu xonk bi ñu bind abonné waaye bu leen fàttee bës ci kolos bi ngir man di jot suñuy notification te bu leen fàttee zem tey partagé suñuy vidéo ak Faaida TV njariñ kase la leen di jural bismillahi wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa shafiina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa saxaabati ajmain bokk yi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak ñun ci site internet bi di Faaida TV fu ngeen mën di nekk ci àdduna ñoo ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp waaye itam di bokk ak tiis suñu bokki turkiyen yi ak Syrie yi nga xam ni fan yi li ñuy wax euh, tremblement de terre moo fa jaar alak fa ñu baree baree bari yàlla na leen yàlla ër yërëm ñi nga xam ne ñoo ci faatu ñi nga xam ñoo ci gaañu yàlla na leen yàlla saafara mbokk yi ñu dikk ak yéen nag ci seen émission bi nga xam ne ñu ngi ko duppee univers coranique univers coranique tour wi wax nañ li tax ñu joxe ko mooy mbooleem loo xam ni scientifique yi dañ ko trouvé ci univers bi ci jamono bi te alxuraan informé woon ko avant mille ans yu teg quatre cents ans indil leen ko di wane ni rek alquran ki ko wàcce kon mooy ki nga xam ne nii moo bind univers bi ndax avant mille avant junni at yu teg ñeenti téeméeri at science judduwul technologie amut développement bi ci am amut alquran di ñu informer loo xam ni xelum kese mënu ko woon a xam jamono booba ki bind univers bi rek moo ko mënoon a xam di ko informer ab yonentam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey bala ñuy sori ñu présenté leen suñu aaya bi ñu fas yéene euh, waxtaane bi ñu fas yéene tafsir tafsir ilmi ban rapport la amak ak science laaya jooju mooy jan mooy laaya ji nekk ci suratul anbiya ca verset 32 borom bi subhanahu wa wax ni wa ja'alna as saq fa mahfuzan wa hum an ayatiha mu'ridun et nous du ciel un toit protéger borom bi subhaanahu wa taala wax ni ñun yàlla ñoo def asamaan mu nekk toit maanaam mu nekk benn plafond boo xam ni plafond bu ñu protéger la loolu danañ ci ñëw bala ñuy sori waaye li muy confirmer rek mooy notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour tous les hommes et pour toutes les époques et le livre qu'il a apporté dispose de la particularité de répondre à tous les besoins des hommes loolu mooy li nga xam ne nii mooy li am l'islaam alquran ji nga xam ne moom la yonent bi indi ba àdduna di tukki lu boroom xam-xam yi avancé avancé ci ay gëstu toujours dafay rester di mën a indi ay répondre ci li nga xam ne nii moom la ñu daj di ak li nga xam ne nii moom la ñuy laaj mbokk yi balay boobu relation bi mu am ak aaya ji te scientifique yi trouver ko mooy ñoom scientifique yi dañoo wala ñi nga xam ni ñooy boroom xam-xam yi gëstu wàllu géographie dañoo séddale suuf quatre partie muy li ñuy wax biosphère l'hydrosphère ak euh, li ñuy wax euh, euh, lithosphère ak li ñuy wax couche d'ozone couche d'ozone boobu nag moo am ak relation ak aaya ji lan mooy couche d'ozone mooy loo xam ne nii dafa wër suuf pour mu gën a leer nañu xool suñu écran bu fekkee suñu technicien mën nañu koo gaaral ni ngeen ko gisee ni li mooy planète terre bi muy kaw kabul ard muy planète bi nga xam ne ni suñu cinq continents yépp ci la nekk muy amerique dégg nga Europe Afrique Asie et cetera mbooleem suñu dëkkuwaay yi fii la nekk ak suñu géej gi ci planète bi mais gis ngeen li ko wër nii li ko wër nii mel ni verre mel ni verre wala mel ni toile moom la ñuy wax couche zone couche d'ozone bi diggam ak suuf ni ngeen koy séene nii diggam ak suuf muy planétaire def na lu toll ci trente cinq mille kilomètres mu ëmbale li nga xam ne nii mooy euh, li ñuy wax alxilaaful gaz yi muy li ñuy wax atmosphère atmosphère bi moom soriwul waaye def na quarante mille quarante kilomètres ngeen baal ma mais bu dee jëmmi couche d'ozone bi moom moo gën a yaatu moo gën a sori moom bokk nañ ci njariñam moom couche d'ozone mooy dafa dox suñu diggante ak rayon yi nga xam ni moom la jant bi di dégager muy flame bi nga xam ni tàkk-tàkk bi nga xam ni moom la jant bi di dégager te bu dul woon couche d'ozone bi rayon yooyu dana lakk dana alak mboolem ku dëkke ci planetaire bi ni ngeen ko séenee nii jant bi jàkkaarloog donte ci image bi dafay mel ni jant bi moo gën a ndaw mais photo bi la donc niñ koy séenee sax bu ñu nekkee planète ñun dañuy séen jant bi mel ni moo gën a ndaw suñ suuf si mais jant bi euh, lu mat téeméeri ci suuf xaj nañ ci biiram mën na leen nit da niix wan lu rëy rëy la mais ni ngeen koy gisee nii mu jàmm jàmmaarloo jàkkaarloo ak suuf si bu dul woon a couche d'ozone bi lu fi nekk da koy alak da koy ñoral xomb xomb mën nañ cee joxe misaal rek ñoom scientifique yi niñ ci trouver lagère bu ngeen di seetaan léegi film yi des fois ñu ci utiliser lagère te ñu trouver ko ci rayon yi jant bi lagère yooyu nga xam dafay rouge buñ la ko tegee mu ñoral sa yaram fuñ ko teg da koy ñoral xomb ñu ngi ko trouver ci jant bi seen inspiration foofu la jóge nga xam noonu lagère bi di def yaram bi bu dul woon a de zone bii dox suñ digganteeg jant bi jant bi noonu la ñuy def ñun ñëpp ay ñor xomb te boobaa duñ mën a dund ci planétaire bi kon benn ngi noonu daf ñoo protéger ci jant bi beneen bi dafa dox suñu diggante ci lu ñuy wax ay nuages muy météore météore ay xeeti doj la ay xeeti xeer yoo xam dafay tàkk di jóge ci yeneeni planète di menacer suñu terre bi moom it couche d'ozone bi daf koy gàttandu avant mu yegsi baare ko ba du yegsi des fois yi ci jot bët dugg mu lakk ko lakk ko seeyal ko ba du yegsi ci suñ kaw te doj yooyu muy météore yooyu am na ci yu toll ni ndakaarug li ko wër am na ci yu ko ëpp nga xam ni buñ dikkoon ak doole ak vitesse ba ñuy dawee jóge ci yeneen planète yi ci univers bi suñ dalee ci ko suuf rek suuf dafay alku ak li fi nekk mais bokk na ci li muy def mooy daf koy protéger kon xanaa dégg nañ nag léegi li tax borom bi wax ni wa jaal na sama a saqfan mahfuusa ñun yàlla ñoo def asamaan mu nekk toit wala benn plafon boo xam ni bu protégé la te asama bokk yi nañu bàyyi xel ni bari na signification yu mu am ci langue arabe donte asama dana firi comme niñ ko xamee waat jamon bi muy pluriel bi muy asamaan yi nga xam yàlla dem ñu koy informer te ay créatures yu invisible dëkke fa muy malaaka yi ak lu mel ni wasi'a kursiyuhu samawaati wal ard ay arach yooyu noonu wër ko bokkut ak ba tey signification bi nga xam ne amaan na ko feneen te mooy li la tiim te bu ngeen xoolee traducteur yi traduire alquran ñëpp toit la ñu utiliser wala plafond mooy li leen tiim maa def li leen tiim mu nekk benn protection bu leen di protéger kon gis nga ñu dem ba vingtième siècle jàpp vingt et unième scientifique yi door a trouver ni ndekete suuf am na benn partie bu ñuy wax atmosphère boo xam ni liggéey mbokk na ci mooy moo dox suñu digganteeg jant bi gis ngeen fi mu ne suñu planetaire bi bu fekkoon doonul wëndeelu jàkkaarloog jant bi rek nii ngeen ko gisee ñi nekk bëccëg nekk ci bëccëg deux jours trois jours quatre jour rek li li atmosphère bi di am am doole du tee ñi dëkkee ci côté boobu da leen di yàq da leen di alak donc guddeeg bëccëg ndekete sax dafay bokkaale ci yërmaande yàlla yi ba guddi du sax benn dàkk benn place euh, bëccëg it du sax benn place bëccëg bu saxoon benn place ñi féeteeg bëccëg bu defee une semaine ñoom ñëpp tàngoor dana leen rey te rayon yi mën naa bëtt atmosphère bi côté boobu donc kon atmosphère bi moo ñuy protéger waaye di noppaluwaale guddi gi bu guddi jotee mu noppalu beneen côté jël jël côté boobu ni tuut mu wanaat ko ginnaaw bu guddi jotaatee beneen côté jëlaat noonu lay doxe ba duñu mën a lakk li may daaneele rek mooy ginnaaw loolu scientifique yi trouver nañ ni li ñuy wax euh, Euh, muy euh, saxaar yi muy pollution bi nga xam ne nii moom la usines yi di dégager ak ancien oto yi nga xam da daan am saxaar bu baree bari dafay mën a détruire suñu euh, atmosphère boobu daf ko mën a bënn ba tax na léegi gis nga oto yi ñuy créer ay oto la yoo xam ne ni du am saxaar naka noonu ñu ngi éviter bu baax a baax xeeti usines yi nga xam ni dafay vaporiser bu baax ba mën a xotti suñu atmosphère boobu naka noonu yenn euh, defukaayu mbalit yi muy àll mbalit yu yaatoo yaatu yu bari yooyu dafay yàq suñu atmosphère bi kon muy jullit ak ku dul jullit képp kuy nit war naa participer ci lépp loo xam ne nii mën na yàq suñu atmosphère bi lu mel ni di créer ay daay ay safara yu rëy rëy da koy xotti te alquran wax na ni zaharal fasaadu fil bari wal baxri bi ma kasabat ay dinaas suuf maanaam yàqute feeñ ne ci suuf sa géej gi te loxo yi nit ñi ñoo ko def kon bu dugg ci xas woowu nga xam ni yàlla mel na ni ku ko xas doomu aadama yow jullit bi mooy lépp loo xam ne nii dafa mën a protéger suñu environnement bi te loolu mooy muccal suñu atmosphère bi na nga ci participer mais lépp lu ko nar a yàq génne ci sa loxo ndax borom bi subhaanahu wa taala ñun la def xulafawul ard ñu nekk ñoo xam ne ñooy représentant am ci kaw suuf ñoo ko war a sàmm waaye daal ci daaneel mooy xool ngeen yonent yàlla Muhammad kan moo ko war a informer ci jamono boo xam ne nii benn jumtukaay bu la mën a yéegal ci kaw amut du avion du hélico du benn jumtukaay boo xam ni mën ngaa dem ci kaw ba xam lan moo fa nekk ba xam ni am na lu ñuy wax couche d'ozone kan moo ko informé kon philosophie jàpp ni xel mu neex rek la juum nañu li ñuy wax rek mooy wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha moom kat la muy wax la créateur moo ko informé waaye du bànneexu bakkanam moom sallallahu alayhi wa kon suñu aaya tey daal ci daaneel gis ngeen ko mooy suñu gorob bii ñu dëkkee am na saq saqfam mahfuuzan bu ñu alquran informé lu jiitu junni at ak ñeent téeméeri at te booba kenn warta xam ne loolu mën naa am muy li ñuy protéger ñu jox leen dig daje ci seen émission univers coranique ak yeneeni aayaat yu am relation ak science wa axiru dawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa wa barakaatu